du kooka wan ko ni yëg naa la nga def mhm. loolu rek lañ ci jublu su ko defee sëñ Moustapha Ndoye bu setikoo maa ngi koy nuyu di ko beral nuyoo ak ziyaara di ko ñaanal suñu borom dolli ko tawféex moog suñu wéejur wu jigéen wi eh, nga xam ne ñoo bokk wéejur muy ajaratu liikandooy yàlla na fi yàgg te wér di nuyu Moussa jaañ ex directeur bu dakaar dim Dikk di nit ku baax koo xam ne sama xarit la sama lépp la di ziyaare sunu mag ji nu bokk muy Serigne Fallou Mbacke Diagne bu IGE ñu bu baax a baax sëñ Allé Touré Allé Touré ñu ngi koy nuyu Darmanko jaarale ko ci sunu rakk Cheikh Anta Samb mm-hmm. ah, di nuyu soxna maa ami Mbàkke mu sëñ Abdou Kumba Suuna mu sëñ Baara nday sama xarit lool di ku ma sopp moo njaboot sëñ Abdou Kumba Suuna gépp ñu ngi leen di nuyu naka noonu soxna Baali Mbàkke Abdoul Wadoud mu sëriñ Moodu mata mu sëñ Afiya day sama soppe ca Touba ziyaare soxna Fat Dieng madame Mbuub Euh, di sama tànta di mhm. soxna Serigne Boub CCBM mhm. ñu ngi koy ziyaare mook Serigne Boub mhm. ndax vraiment ñu ma jàppale lañu yàlla na yàlla sàmm leen ñoom ñëpp beral nuyoo Abdoulaye Diabou Séniko moom ku ma jàppale la maa ngi koy ziyaar bu baax di ko nuyu léegi la ma Serigne Saliou Khoule di jotal ni sëñ Modou Gueye moo dawal oto ASC Pikine dawal oto ba fii jël at bi xaalis bu bari daal ñu koy jox yaag ak sa ah, yàlla na ko yàlla sàmm ah, ah. te dolli taw féexam waaw bis yi eh, dañu bëggoon rek eh, xam naa ziar yi moom fii ba émission bi jeex incha allah dañuy ziar ndax it loolu lañ ci am eh, danañu ko continuer ndax continuer mën na continuer sant yi danañu danañu ko continuer waaw lu gàtt la rek commissaire Ousmane Gueye tam maa ngi koy nuyu bu cité Fadia waaw sama xarit la di nuyu soxnaam soxna Khady Ndiaye mm-hmm. madame Gueye beral nuyoo tam bu baax colonel Ousmane Faye mm-hmm. bu Douane Mm-hmm. kooku kenn mënut a waxtaanee sëñ Fallou fàtte ko. ndax dafa am relation bu ñu boolee man ak moom. Mm-hmm. te ci sëriñ Fallou la toog samay waxtaan ci moom ba daanu ci bureau woom loolu lañ jàppante. Mm-hmm. contribuer lu bari ci sama dund. maa ngi koy ziyaare mook njabootam gépp ay soxnaam yàlla yàlla bàyyi kook ñoom te sàmm leen. Adja Awa Makalu ak soxna Khoudia Fall di nuyu bu baax sëriñ Makhtar ja euh, nekk. Euh, président conseil départemental bu Kaffrine mhm. sama xarit la sama soppe la mhm. maa ngi ziyaar sëñ Abdou Lahad Sylla fii ci marché aslem mhm. beleel xéewal di ko ziyaare bu baax mooy joxe foofu tissu yi nuyu tamit suñu wéejur ajaratu Fat Mbacke Niass xam naa ñu ci des ñu bàyyi ba ci kanam bala ma incha allah incha allah ñu nuyu ñëpp rek euh, ngi ziyaare bu baax euh, Mamour Kandji président Mamour Kandji waaw di nit ku baax koo xam ne ñu wéy ah, sa ma lay jot li itam yóbbante ministre conseil maire Mor Ngom nee na kontaan na ci jotaay bi nee na dana am lu mu seq ak yow incha allah euh, dana la boole ak koo xam ne dana la woo. Mm-hmm. loolu ci xeetu teraanga yi la. Mm-hmm. Euh, mënta ñàkk ñu ngi koy gërëm bu baax. Euh, Serigne Abo ibnu Serigne Mourtala Fallilu moom it woon nañu léegi ak Idi Seck ñu bokk moom Serigne Abdou Khadir Mbacke ibnu Cheikhul Khadim kon ñu dellu si rek ci Ablaye. Mm-hmm. Ablaye léegi nag ñu ñëw ci ndénkaane yi ki ñu doon waxtaanee di Cheikh Mamad Fadel ibnu Cheikhul Khadim. waa xam naa sëñ Fallou lam ñu dénk la ca gën a rëy mooy bëgg sëñ Touba. Hmm? bëgg sëñ Touba loolu lum ñu daan dénk la. la ca gën a rëy ndax moom mësta wut lenn moom sëñ Fallou lu dul rek bëgg sëñ Touba. xam nga maa ngi lay wax léegi ci Ceyeen Jolof. Hmm. wax na ko ci kaset ci la leen sëriñ Touba wooloo moom ak euh, euh, magam ju baax bi sëñ Modou Moustapha ak sëriñ Mor Roqayo Bousso ak sëñ Massamba Mbacke ne leen duma bàyyu kenn ci du ma magu kenn ci yéen du ma nijaayu kenn li ci sama kër pas-pas a koy maye ak taalibe sëñ fàllu dafa def ay bayit yoo xam ni dafa jébbaluwaat beneen njébbal boppam sëñ Touba nga xam ni wutul lenn li gën a neex mooy doomi sëñ Touba la waaye nee da koo jaay moom hmm. ca la binde bayit yu siiw yi mu wax ni yaayuha cheikhu nafisul murtaja yaa fatihan maa qablu kaana murtaja biatu bunawatiya bil irada lakum li kay axda bi xarqi aada min baadi mastaraytumuha minni ahdaytuha lakum bi gayri manni fal taqbaluha ya malaatu karama la ziltumoo bayna al baraya alama lan la wax dani yaayu a cheikh yow sëriñ Tuuba mi nga xam ne yaay sunu sëriñ yaa ay yaayu yaa ayu a cheikh yow mi nga xam ne yaayu sëriñ bi yow laay waxal yaayu a cheikh yaayu a cheikh nafis nafis ci arab mooy lu cher lu propre lu pur wuru sax buñ ko seggee ba mu génn ba amatul fenn foo mën a xebat dañ naan nafiis lu ñàkk ndend lu ñàkk rek dara lu ci tax mhm. kon Serigne Touba day ku pire day day day ku cher mu ne ko yaa aywa cheikhu nafiis al murtaja bayit bu njëkk bi ci ngay xamee déggu arabu sëñ fal yéeme na ñaari waat ñaari baat yoo xam ni ñoo bokk nuñ koy bindee te bokkuñu pirin maanaa bi du bokk murtajaa bu njëkk bi mooy ku ñuy yaakaar murtajaa bu mujj mujj bi mooy lu ñu tëj mu ne ko yaayu a cheikhu nafisul murtaja yow sëriñ bi nga xam ni yaa yow la ñu yaakaar nga gën a piire ci sëriñ gën cee sell gën a baax gën a yiiw lamboo njariñu kese yow laay waxal yaayu a cheikhu nafis ñu ni ko ki ngay waxal ku mu doon mu ne al murtaja mooy ki ñépp di yaakaar mu joxoñ sëñ Tuubaa ko yaa faatihan yow mi nga xam ne yaay aji ubbi maa lépp loo xam ni kaana nekkoon na xablu lu jiitu murtajaa doon tëje kon sëñ Tuubaa bi mu ñëwee dañoo ubbi li nu jafe woon sëñ Tuubaa tekk di ko déglu sëñ Fàllu ni ko bientu jaay naa hmm. fi'lul maadi nga xam ni jëf ci moom def naa ko ba pare bientu waxul abion dañuy bientu jaay naa bu noo wëti ya sama njuréel sa sama ndoom baat bu jara taxaw sëñ fàllu nit ku woyof la mm. xam nga mënoon naa wax jaay naa doom ji ma doon ci yow waaye jaay naa samas ndoom da koo def tasxiir loolu mooy li tubaab di wax diminutif tuuti laat boppam doom ji sax nee na defuma ko tiitar waaye ndoom si la wax mm. biatu bu noo wëti ya jaay naa samas ndoom loo ko jënde mu ni bil iraada ak taalibe laa ko jënde ci yow sëñ Tuubaa waaye min ba'di mastaraytumuha minni ginnaaw bu ma la ko jaayee ba nga jënd ahdaytuha lakum jëlaat naa loolu lépp def ko hëddiya mu ñeel la ahdaytuha lakum bi xayri man ni ci lu ànd ak ñax beextu bunawatiya bil irada lakum li koy oxsa bi xarfi aada dégg naa ginnaaw bi wax na mag mu ko jegeñ ni ko loolu sax ginnaaw bi rëccu na ko loolu mu ni ko sax bu dee loo may defal la defal ma ma nekk xar baax te damaa war na bàyyi sëñ bi duma ma sàkku dara rek jox ko lépp jeex ci moom mu ne ko nag ginnaaw boo ma fayee def naa ko hëddiya du ma doom ju bëgg a donn baayam waaye damay liggéeyal rek sëriñ Tuuba def na fii kaset ñëpp di dégg mu ne waaye du ma dara waay bëgguma nekk dara lu dul bi sëñ Tuuba rek nañ may dégg ci moom rek ma bokk ci njabootam képp doy na ma walif may wut leneen mu ne ko nag boo ko nangoo defaat naa ko hëddiya ci yow bëgg sëñ Tuubaa googu feeñ na ci beneen xasiida bu mu liggéey wax ni yaa raiman misla cheyqi mahlan falasta taraahu sëñ fàllu bi muy wax loolu mu ngi contrôlé xam bu baax nguuru sunu borom gi xam nitu yàlla yi waaye nee na doo gis ku mel ni sama sëriñ yaa raiman yow mi aji sàkk misla cheyqi ku mel ni sama sëriñ sëriñ Tuubaa sëñ fàllu nee na mm. mahlan doucement attention defal ndànk fa taraahu doo ko gis amul men réew mu am sëñ Tuuba fa lasta taraahu mu ni tabaarakallahu man fil anaami gawsan jalaahu kon nan delloo lépp yàlla rek tabaarakallah yàlla mi feeñal sëriñ Tuuba ngir mu nekk xawsu di xettali jamono ji sëñ Tuuba ci jariñuwul yaa yaafus mm. waaye ñépp la njariñ sëriñ Fàllu dem ba mu yàgg mu ni saf ku li hubbil xadimi fardan araahu nee na bëgg sëriñ Touba ba mu yóbbee la di jooy sa rongoñ di toq mm. nee na moo farata yi ñooyem julli farata la koor farata la natt asaka boo ko amee nisaab bi farata la ak màkk boo amee mooy téwér farata la mu ni bëgg sëriñ Touba bay jooy gis naa ko muy farata noonu la bëgg sëriñ Touba moo tax am na bis mu yéeg ci jumaa ji di xutba imaam bu yéeg di xutba mal jumaa xutba bi mu ni day gàtt ñaari baat lay doon xanaa xamoo Serigne Fallou bi mu jëlee xilaafa gi 1945. Hmm. ba 1968 270 ajjuma la ci am 270 ajjuma ñaar téeméeri ajjuma ak juróom-ñaar fukk juróom-ñeent la ci wuute la ci ab te tawat ji ko yóbbu la nga xam ne Serigne Bousso Ilimane moo doon jiite waaye Serigne Fallou jiite ne 261 vendredi. ci jumaay Tuubaa ji di xalifa di imam di xalifa di imam di mbusoobe di mbàkke mm. di jarbaatu sëñ Tuubaa di doom réew wilaaya lool mu toog ci yawmal jumaa jullit yépp toog di ko déglu mu ni xutba bi day gàtt ñaari baat lay doom sëñ Fall mm. te daana wax fii ba Màkka bu téere yi lakkoon ñu koy bindaat bu ko sëñ Mbàkke bu sa sama nijaay bindul sëñ Moodu bu sa taawam bind ko su ma ko bindul kenn di ko bind mu boole ak xam-xamam yu rëy yooyu yëpp mu tey sama xutba bi ñaari baat lay doon li may wax mooy asalaamu aleykum ki ñépp soxla tey ak ëllëg te ku ko am am nga lépp mooy sëriñ Tuubaa nan ko jàpp ni wasalaam loolu la xutbaa kon digal nañu ci bëgg sëñ Tuubaa waaye sëriñ Fàllu yarekat la woon dafa am ku ñëw ci moom ni ko sama jabar damaa sonal sonal na ma lool àgg na ci day dóor samay eh, sama yaay la wax daf ma sonal àgg na day dóor sama jabar sama yaay di dóor samay doom te kilifa la mënuma koo bët ma ne naa ñëw ci yow nga ñaanal ma ci bokk ma wax ak yow Mbàkke sëñ Fàllu ñu ko boo delloo nga muñalal sa yaay ba mu àgg ci jooyu guddi nga ñëw xamul liñ ko wax mu toog ba jëmmi jamono mu delluwaat ni ko Mbàkke la fi doon wax sama yaay damaa sonal day dóor soxna sa xale ya waaye lag ma tontu woon laa xamul sëñ Fàllu ni ko dama ni dellul ba mu àgg ci jooyu guddi nga door koo laaxan ni ko ndax yow bi ngay liir fii laa toog suñu borom xamal ma ni dangaa wexoon loolu di jooy guddi gépp a fajal te sa yaay xamoon na ma yaakaar ma te mësuta ñëw laaxan si ni sama doom ji daa bari jooy dalaa muñal ba nga toll nii soo ko mënta muñal nag bàyyil ba mu àgg fa nga àggoon ba say jooy bari moo tax ma ne mu muñalal sa yaay ba mu àgg ci jooy guddi kooku yarekat la woon Sëriñ Fàllu nit suuf na loo xam dañ koy tere di ko dugal ci réew mi ñu nar koo jàpp mu tiit jànnaxe ni Sëriñ Fàllu ma yónni da daan da yërëm bañ ko ko waxee te ne waaye maa ko yónni waaye bu ko kenn def dara na ñëw mm-hmm. ndax mbaax kooku ñëw def la muy def ba àggal dem di jéggulu ji ba mu ñëwee dafa fexe ba jël alal bi mu jëloon te lewul mu delloo ko lépp lu mu ko fayee ndax xam na ni ci njabootam la ko yóbbu ni ko bu ëllëgee bu mu la ci fekk waaye du ma tas yaakaaru ku ma yaakaar sëriñ Fallou nit am na doom war a tudd doomam te bokkul ci mu muridiyya mu ni sama doom jii sama taaw la di góor ma jaxasoo lool ndax awma lu ma ko tuddee awma lu ma def ci bis bi tax awma fenn fu ma jëm réew mi jafeñ na fan laa jëm ma woo ñaari xaritam waxtaan ceeg ñoom ndax nag li baax di baax baax am na ñu bañ lu baax am na ñoo xam ni loo baax baax ñu bañ bi mu ko gaanalee ñaari moroom yi kenn ka ni ko loo ji bëggoon mu ne ko damaa bëgg a seeti sëñ Fallou ndax damaa dégg mbaaxam ji fu ne lay dimbali ma bëgg a dem ndax kajoor dañuy bañ bëtël sab taaw te sama taaw la te mbokk yaa ngi ñëw te yoruma dërëm te moom laa ci yaakaar xam nga les années 60 rek mu ni ko loo xalaat mu ni seeti sëñ Fallou dafa tabe kenn ka ki ñaan jàpp ko mu ni moo tàyyi ko sëñ Fallou dafa am lu mu lekk ba am lu mu la jox ka ca ni ko sëñ bi li ngay wax ñaaw na diine ji ñoo ko bokk nañ ko rafetal comme xelam da koo jàpp donte du taalib bi mba ko mu dem góor gi waat fekki sëñ Fallou fekk ko mu toog ci garab lu ngi gis gi toog ak dalli bot ya hmm. mu raam ni ko jabb loxo nu yóog moom nu jàmmante mu laaj ko fu mu bàyyi koo mu ni kajoor mbaa lépp jàmm mu ni ko bët bu xonq rek ma jaxasoo mbàkke sëñ fàllu ni ko lu ko tax a xonk mu ni ko damaa am doom mu di taaw di góor ma bëgg koo wutal tur samay mbokk di ma dikkal te dañoo ayibal bëtal ngénte mbàkke aw ma fu ma jëm tool yi ñoragul sama xel dem ci yow mën naa la seet si sëñ fàllu ni ko neel dégg toog fii rek lu ñëw rek lu bokk incha mu toogub diir oto gaare ah. nuyu sëriñ fàllu jox ko keesu xaalis toogaat ab diir oto gaare jox ko keesu xaalis ñetteel bi oto gaare nuyu sëñ fàllu jox ko keesu xaalis muy ñetti kees sëñ fàllu teral gan googu nga xam ne mbokkum jullit la ba mu war a dem mu ne ko yaay boroom ngéntelee mu ne waa neel diis ba nii nu waxtaan mu randu ba jege sëñ fàllu mu ne ko dindil kees ku njëkk gi ñu xool góor gi nee na bi mu ko dindee dafa tiit ndax booba jamono juróomi dërëm xaalis la muy wàññi ba mu yàgg mu ne ko mbàkke su ñetti million sëñ Fall ni ko xanaa mën naa defar laax ak ceeb ngir sagan yi mu ni Mbàkke ñetti million ci ngénte ëpp na mën naa cee tabax jumaa ca yooyu jamono <laughs> sëñ Fall ni ko déedéet jëlal rek du ma tas yaakaaru kenn ku ma yaakaar mm-hmm. mu ni ko jërëjëf Mbàkke rongoñ ji dara toog muy dem sëñ Fall ni ko déet des na jox ma geneen kees mu jël deuxième kees wàññi sëñ Fall ko ñaataa ci ne mu ni ko million ak genn wàll un million cinq cent mille sëñ Fall ni ko xanaa mën naa xottil doom ji mbootu mm. mu ni Mbàkke léegi bëgg a ëpp di rongoñ ji di toog sëñ Fall di ko bul dem des na geneen kees mu jël troisième kees jox sëñ Fall sëñ Fall di ko wàññal ñaataa ci ne mu wàññi ni ko téeméeri junne cinq cent mille mu ne ko boo delloo sa xarit bi tudd Matar sant Gajaga di la wax omalu ma lekk nee ko dégg naa ko nañu sol lu yéere ñoo ci sa ngénne maay borom Touba ak Daaru Salaam oh. koo koy sëriñ Fall waaja mu dem tudde doomam sëñ Fall far daane lu baax fu ma ko amee baax na jébbalu naa jaayanteeg sëriñ Fall tuddee ko ñeenti doom mu wóolu ko Aliya mu ñëw mu ni tuddeel keneen waay mënuma doom ci ne ma xottil ko mbootu waaye man naa ku mu tuddee doom ma dox sa digganteeg sawara koy sëriñ Fall kon dénkaane jullitam yëpp jullit yëpp la ko daan jox. Euh, euh, am na ku ñëw ci dénkaane yi. nuyu sëñ Fallu ni ko damay weranteeg sama xarit bii jàpp ak ci gën. jàpp gi ñuy def bu nuy julli ak tiim lu ci gën sëñ Fallu atte leen atte atte bu. sophistiqué dani kan kan moo wax jàpp gën mu ni man kana a wax tiima gën waaja ni man sëñ Fallou daal di xaaral daal di génne kayitu junni daal koy teg ne yow mi ni tiima gën tiimal ta dem mu tiim junni bi xool mu ni ko demal déedéet tiimal rek mu tiim dem mu ne yow mi ni jàppal gën jàppal mu jàpp junni bi mu ne ko yaa moom kon léegi wane na ni noonu la leen attee am na ku mën a xool ku safoon xorom la sëñ Fallou xam nga nit dafay am yar boo toogee kilifa doo ko fixé am xale bu toog ci jataay bi di xool sëñ fàllu rek ni xóojju bañ a xef di ko xool ba mu yàgg sëñ fàllu mu ñëwaa kii fu mu dëkk moom ñu ne ko kii de ñàkkul rab la dëkk mu ni mooy rab wa te eh. dana la jàngal te dana la yar <laughs> may na ay xari ki am ku amul xar ñëw ci moom ni sëñ fàllu damaa bëggoon nga dimbali ma xarum ki sëñ fàllu woolu mbokk mu tudd Modou buso ne ko joxal ma ko xar xam naa xar ma ko jox na gënalu ko ndax daa mel ni xar ma daa xaw a cuqur kawar gi bari na te taxu koo am tuuti ndawal waaja nag def ko yaree di ko ndax ku yaru booy ñaan lu la may danga war a sant waaye mu ni sëñ jox na ma waaye daa mel ni ci xaru yar yi laa bëggoon sëñ Fallou ni ko doxal dem waaye ku yar xaru yar ku yaru lañ koy jox te nu yar ko ci kër gi nga xam ne jàngal na ko àdduna kon sëriñ Fallou ci dénkaane dénke na nu nekk daana wax tam yërmande yàlla bu ko kenn di tënk fenn dafa yaatu ñëw na fii dakaar ne ku fi ku fi fanaan tey yàlla jéggal na la am ko ko jegee ne ko ah ah mbokk ñeeng fi dañu nekkul jullit mu ne ko ah, yàlla da koo mënu la mu ne ankay ah, mu ne ko bul xatal lu yàlla yaatal ñépp la yéene woon jàmm ëmbal ko ñépp uh-huh. nekkoon yarekat nekkoon boroom yërmande uh-huh. moom sëñ Fallou waaye nag bi mu wàccee liggéey euh, avant ñu ñëw foofu dama ci xisa yi rek waaw euh, am na ngan gu ñuy wax gu mu gane ji woon euh, sëñ Issa Diène fekk euh, sëñ Issa Diène benn doomam wàññeeku. waaw ah. doom jooju sax dégg naa nekk na fi après ba doon xalifa sëñ Issa Diène. waaw dégg naa ko noonu. waaw ci waxkat yi. Euh, wóoru nag. Mm-hmm. lu ma dégg la. dégg naa ko comme ni nga ko déggee ñu waxtaane ko. Mm-hmm. maa ngi ziare xalifa Serigne Abdoulatif sëñ Abdoulatif Diène la. dégg naa ñu ni sëñ fàllu mas naa ñëw. di ko euh, di di seet si maam Cheikh Issa Diène. mbokkam mu baax moomee di kenn ci yoonu murit mu xamal ko ni kër gi tey da nga fee fekk kenn ci njaboot gi koo xam ni euh, sunu borom da koo mel ni jël na ko mm-hmm. ñu bëggoon nga ñëw rek comme fekk nga ko nga ñëw taxawu sëñ Fallou dem fenn njàqare di faam mm-hmm. daal di ànd ak moom génn kooku wax nañ tey mooy xalifaam loolu ni nga ko déggee dégg mm-hmm. naa ko ci mag ñu maandu kon loolu lépp day wane rek juboo gi sëñ Fallou juboo woon ak boromam ba nga xam ni fu nit amee jafe-jafe ak foo ko amee boo ñëwee sa aajo faju gis naa ci ay njaago gis naa ci ay njaago Mbàkke kay njaago yi sëñ Fallou yaa nga fa Mariane Mendy maa ngi koy ziar mu sëñ Jiili Fallou euh, sëñ Fallou jaar naak moom fu ne ci baatin moo tax mu dem àndeeg sëriñ Jiili sëñ Jiili dimbali ko ci baatin euh, gis naa ci ñu bari bari ki dem benn njaago ci France damaa woo day wax bay jooy kon sëñ Fallou mooy sëñ Fallou ñëpp léeg-léeg sax ma rombam njaago mu ni ma Abdoulaye Diop Bichri koroom ma ni ko koroot mu ni ma uleef ma ni ko muyees mu ni ma sëñ Fallou ak ci na loole eh, loolu mooy sëriñ Fallou amul morom ñëpp a ko nangul réew yëpp a ko nangul sëñ Fallou njéeréer yi jamonoy màggal jaaxal loolu réew mi xam nga léeg-léeg yàllaay wàcce yenn mbas ak jafe-jafe yi mu wàcc comme lii xew rek di corona bi mu wàccee ñëpp jaxasoo sëriñ Fallou dafa wax ni nañ ma fobal benn ci ñoom benn benn njéeréer rek laa ci soxla ñu dem jëli benn njéeréer jox ko sëñ Fall mu daal ni ko yow laay waxal wool sama moroom yi ngeen ni mottu génn Sénégal may ñu jàmm mhm. njéeréer yi ni fër yépp topp ko dem kooku mooy sëñ Fall waykat yi wooy nañ ko mhm. sëñ Moussa Ka mag la te nee na feeg jàngu siin baa na leen wóor ni feeg jàngu siin baa sëriñ Fallilu laay def sëriñ Tuubaa Mhm. siin baa kenn ko jàng baa siin rek ah, kon sëriñ fal man la goo xam ni euh, Serigne Touba ko def ni mu mel tey sëñ Touba waxoon dinaa solu ci moom dégg naa si sëñ Cerno Mbàkke gelongal doomi sëñ Omar Mbàkke gelongal mu sëñ Mbàkke Kajoor nee sëriñ Serigne Touba yónni nay mag ci sëñ Fall baayam ca la bokk bu ngeen demee nee leen sëñ Fallu man sëñ Touba sant naa ko gërëm ñuy dem mu ni dinaa leen ci dolli leneen li ci man war ta xaj ci kenn waaye dinaa ko def ci sëñ Fall bu ci xajul tam dinaa ko xajal ci moom ba mu xaj ma def ko ci moom ba ñëpp xam ni maay moom allahu akbar jamonoy dox ba sëñ Fallu tëdd tawat sëñ Omar seeti ko ci tawat te sëñ Touba moom la waxoon loolu ay mbokk ba mu ñëwee mu ni sëñ Fallu nu yaram wi def sëñ Fallu ni ko dara waaye dara daruma sëñ moo doon jël jëmmam ji di ko rokkas sama jëmm rokkasub sëñ Touba moo diis rek moo ko doon xaj xajal sama jëmm laa tëdd nii dara dalu may sëñ Touba la sëriñ Fallu dafay sëriñ Touba day boroom jagle day ku ñëpp bëgg bi mu ganee àdduna maam seex Rafaal moo ni njàccaar lu mag li xilaaf ak alaaji baara maam Cheikh Rafaal la ko njëkk a wax mu ngi ko waxee xuru Mbàkke ba mu koy wax lopp fukki nit ak juróom ñoo mag al alaaji baara ba mu koy wax sëriñ maam seex Rafaal a ngi fi sëriñ baa ngi fi ñépp a ngi fi sëriñ Fàllu nuyu ji ko ba mu nuyu maam Cheikh Rafaal di ko jaale njaboot gu wàccoon liggéey dama ko gàttal mu daldi gis tànki sëñ fàllu yi fi mu marqué moom maam Cheikh Rafal mu ne ah nañ toppatoo ndiggu tànku sëñ fal yi ndax ku ci sa bët tege sa yaram araamal na safara daal di wax ni ah doom jamono ngi ñëw du ñu gis sëriñ Touba du ñu gis doomi sëriñ Touba su ngeen eggee sa jamono booba surtout sëriñ Touba bii njëkk a toogal sëriñ Touba sunu borom nee na boroom ñetti ndëgg tànk yi mooy nekk baayam kookoy alaaji baara <laughs> te bi mu feeñee ci daaru salaam wax nañ ñi maam Cheikh Rafal dani tey de sëriñ Touba am na gan goo xam ne ci këram jamonoo ngi ñëw ku ci sëyi jiwul di ci njaaloo ji mag ñi ni ko faal luy loolu mu ne ah doom sëyi ci sëñ Fallu mooy dem jébbalu ci moom muy sa sëriñ njaaloo ci moom mooy sëriñ boo mën a am jamono ngi ñëw nga fàtte sa sëriñ tiit di woo turu sëñ Fallu koo koy sëñ Fallu jërëjëf koo koy sëñ Fallu euh, Fatou Euh, am na laaj question bi ma bëggoon posé sax tenir nga ko en compte juste que ne. Uh-huh. ci juróom-ñaari sëñ yi ndaxte alxamis bi weesu man mii dama fay jóge sama oto euh, maanaam oto bi crevé. Uh-huh. ma taxaw foo xam ne amul kenn ku fa nekk. ma taxaw jaaxle tudd Serigne Touba tudd juróom-ñaari sëñ Fallou. bi ma ko tuddee taxaw Sénégal Tour lu amul seede euh, baaxul doomam bu ñuy wax xaadim dama génn ci oto bi taxaw mu lëndam ma duggaat génnaat wax juróom-ñaari sëñ Fallou mu ñëw taxaw sama kanam. 4x4 bu weex ne ma soxna si foo jëm ma ne ko oto bi moo crevé te mënta dem mu ne ma lu ciy pexe ma ne ko bàyyi ko fi ba suba mu ne ma ndax fi wóor na ma ne ko wax dama ko fi bàyyi dénk ko Serigne Touba mu ne ma nañ dem ma yóbbu la mu yóbbu ma ba sama kër ma yegg bi ma ko waxee ne ko mu ne ma sànq ba tey maa ngi leen di seetaan waaye tey bu ma la fekkoon ci tali bi nga jëm Touba amaana dama lay yóbbu ba Touba door a wàññeeku oh. loolu kon muy juróom-ñaari sëñ Fall ñuy wax ndax nag loolu da nga koy gëm mu lay wuyu si wala noonu nga xam ne noonu laa ko waxee man mu ñëw ci man noonu la juróom-ñaari sëñ Fallou yi. jërëjëf sa salaaj bi xam nga euh, tawasulu maanaam wéeru ci dara ngir yàlla am na ci lépp waxuma la sax diine ji nu bokk nga xam ni mooy ngën ci diine waaye nit sax bu nekkoon ci garab am ci pas-pas gëm ni mën na koo faj mu faj ko. Mhm. waxuma laa nag koo xam ni dundam gépp yàlla la ci la nekkal dundam gépp sëñ Fall di doomi Sëriñ Tuubaa jënd cëram. amuk wilaaya koo xam ne ñi mu bokkal ñëpp a nangu wilaaya sëñ Fall ñëpp a ni diggante tàccoom wala ñaari tuñ yi lu mu ci wax yàlla def ko sëñ Tuubaa noonu deen ko bégloo te koy wax loolu mu wax yàlla def ko léegi nag moo wax ni ku ma woo ma wuyu la daal ni olof dani sàmm mënul kanamam mën gannaawam ba mu des mii sàmm sama kanam ak sama gannaaw ku ma woo ma wuyu la <laughs> man mii di wax ak yow galaaj ma ci atu 2003 wala 4 waroon naa fee am ab tukki dem ba soxla soomu cent cinquante mille sëñ Abdul Karim mu sëñ Fàlloo may dégg nag ndax man du wax lu wérul cent cinquante mille ma jaxasoo lool mënuma ko amee mal ab ko leb kenn abaluma ba loola far fomm nara fomm ma daal di bàyyi ba ngoonu aljuma ma jàng ma faatihul bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna day xasida goo xam ne sëñ Tuubaa ko taalife jolof waaye dafa am relation bu réeg sëñ Fall ma jàng ko ba àggal woo juróom-ñaari turu sëñ Fall mm-hmm. ne ko Mbàkke aaju bii jaaxal na ma du ma ko laaj benn mbindéef yow laa koy laaj soo ma ko joxee fii ak altine ma xam ni yaa ma ko jox soo ma ko joxulit ma xam ne xaaj nga ma ko waaye yow laa ko laaj mm-hmm. loolu maa ngi ko def ajjuma samdi dimanche ma ànd ak ku ñu mbokk mu ñox sëñ Cheikh Awa Balla Seck ab waxtaankat la maa ngi koy ziyaare au passage bis boobu ñoo ànd dem ziyaare gi sëñ Abdul Karim mu sëñ fal waaye la ma jaaxal mbooloo ma la muy xat-xat yàlla dogal ma ñëw ba jege sëñ Abdul Karim moo ma mujj woolu ni ma moom euh, bisri kaay moom sëñ Abdul Karim mu may dégg ma dem ba jigéen ko sukk moo daal di xëcc enveloppe jox ma ni ma cent cinquante mille moo ci nekk xam naa nga dimbali kooku rek addi sëñ fàllu la loolu bana leen ngeen xalaat mm-hmm. te sëñ Abdul Karim ku ne xam na mbiram te gis ngeen moom pàggu téefu sëñ fàllu dëgg la ndax sëñ Abdul Karim wii juram soxna Awa Fay la tudd soxna Awa Fay soxna Gayel Géy moo ko jur moo daan toppatoo booli ceeb yi di ci def ndawal nu koy yóbbul sëñ fàllu boo nuyoo sëñ fàllu mu ne xaaral léegi xéewal soxna Gayel yi ñëw nga xéewul mu koy def ba 1928 bi sëñ Fàlluy dem Màkka ci la am soxna Awa Fay moom soxna Gaye photo bi nga xam moom lañu ñu photo Sëriñ Fàllu nga xam ni soxna Gayel Gueye moo ñëw woo photographe bi bëgg loolu sëñ Fàllu mu tuddal ko doomam jooju di soxna Awa Fay tudde ko wéy juróom soxna Awa Buso bi mu jugee waatee Màkka ginnaaw bi mu demee ba les années quarante et quelque mu nekk Côte d'Ivoire sëñ Fàllu mi ko tuddoon moo mujj jël soxna soosu ci la am soxna May Galas ak sëñ Abdul Karim moo njëkk a jox junni sëriñ Fallou keroog bi mu ko joxee kayitu junni Serigne Fallou dafa yónnee ci borom Daaru Salaam laaj ko ni ko ndax junni bi manees na cee dundu euh, weer mu ne ko mën nga cee dund at ta jeex booba junni am na valeur kon ñi liggéeyal Serigne fallu ñëpp tey seeni sët a ngi añ seeni doom a ngi añ ñu ngi am teraanga ñi ko sopp ñu ngi tëdd seen lal muy faj seen aajo ñii woo turam ñu ngi koy woo ci jaaxle mu koy faj woo nañu turam ci ay visa am ko woo nañu turam ci ay situation difficile am ko kon sëñ fàlloo mel noonu juróom-ñaari turu sëñ fàllu day faj aajo ci képp koo xam ni gëm nga sëñ fàllu wóolu ko boo ko woowee mu wuyu la jërëjëf euh, Ablaye kon ñuy ñaan ci barki sëñ fàllu rek euh, ak autoroute ila Touba bu neex bi suñu borom suñu borom xéewalenu ay daamaar yu ñuy war yu rafet di se di sol yére yu rafet di siyaare ji Touba ci Serigne Mountakha Bassir loolu ñu ngi koy ñaan ci barke Serigne Fallou ci barke guddi gi nga xamee nii guddi ñan nangoog ñaan la yal na yàlla xéewale ay daamar yoo xamee danañ ci war di sol lu rafet di dem di siyaare ji Serigne Mountakha Serigne Mountakha nag dafa boole ñeent dafa yilif murid yilif tuuba yilif euh, Njaareem yilif Porokhane xalifa yi ko def bari yi ko dajale bari kooku mooy sëñ Muntaxa yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ñuy ziare Serigne eh, Moustapha Alaaji Baara sa xarit ba euh, sëñ Moustapha Alaaji Baara maa ngi koy bu baax Serigne Galas Kaltoum mu baax mi wallaay ndeysaan nga xam ne lu lu waay soxla ci moom boo ko jaaree ci sëñ Fallou mu defal la ko na nga ko bëggee ak euh, sëriñ Galas Khady Guèye mhm. soxna Soda Guèye itam soxna la ci euh, Serigne Abo Fallilou Euh, moom it ñu ngi koy ziar kon ñu ñëw rek euh, euh, delloo delloo akasa mu yëkkati tooyalaat xol yi ñu ñëw nag ci laaj bu mujj bi nga xam ne nii mooy sëñ Fallou jóge fi 1968 bàyyi fi Serigne Mouhamadou Moustapha Fallilou sëñ Modou Bousso nga xam ne diaspora bi ñu ngi koy jooy ba léegi te noppaguñu mu jóge fi bàyyi fi Alaaji Baara di premier xalifa Euh, Serigne Touba ci sët yi wax nga ko léegi ndono googu mu fi bàyyi ba ci sëriñ Abo mu baax mi ñuy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér moom la ñuy tëje nag euh, xaaj bu njëkku émission bi door a dugg nag ci jàmbaar ji muy Serigne Abdou Lahad Mbacké ibn Cheikhul Khadim di euh, troisième xalif général des Mourides ak kasa bismillah saafa saqima naafal alima xaadal xadima ila najaayi ساف سقيما ناف الأليما خاد الخديم إلى نجاي خد فاك قبلا خد بس فضلا فضر ولا ونف جاي جالي نوايب مبدع جايب نافي مسايب بدل هاي مثل الخيار إلى الخسار بدل النصار baadil bahaayi xesuna faadaa manisa faadaa leysuna baadaa ihdadahaayi loo manaaxib loo ajaayib loo xaraayib belantaay zabini kelim dabuni salim teryu asim kaasidaay surun tasiiru xaysun yafaaru birun tafaaru بلا رساي جسني نوح لو نوح زبون يا نوح برا رساي خرحات فقرا من حين أسراح بالجسم جحرا بالأفسراي أكرم بربي أسرى بحبي ليلا لقربي مع البراي خربت سريح من بحر جحري مديم بسري في الأنبياء سر الأمين مع الأمين فوق الأمين للأصفياء دلالة أبدل الدلالة أبدل الجمال على الخياي خد خادموح يسويوح واختارموح زاب النخاي وسعد فيهم وبان عنهم وسين أنهم بدر تخاي خدام الإله خر صبر ليلى خر فاقس ليلى مثل بقال خر جاب ميري لأهل خيري وباب ديري أهل سخاي هذا الكمال فاقر رجالا لا سلمان دالا بلانت ماي نال جلالا نال جمالا ممن تعالى ربي سماي أكرم بعلي حبيب يا علي رح رجال غصن النساي نعم العزيم نعم الكريم نعم المقيم للرؤساء كافي الخرور مع الخرور مقتل برور بلا نساي بني الديور مع الخيور باقي سروري للجلساي لوم تداحي بعض رداي عند الصباح وفي المساء صلاة ستة صلاة ستة مدحسة تاتيهم باتمان تساي عليه سلام ربنا جلا ففاه كلا فلد خاي عليه سلام ولا مرفقا ولا جناسم فسكال غلتي خباب تاريخي أخي الوسوخي كل رنداي الوزير سيف البشيري إذا الخدير مدن الخضاي أرضيائي أخي الحياي خير دام سلبخاي الخريبي ليس الحروبي رمديبي ما ارتخاي على سابة زمن جابة يوم الغابة دايسني نعم رجال لهم دال يلوانا لا وقتنا رداشمي الجميع يوم الخشاني يوم النداي أرباب خيري أرباب الديري لباخ ميري أبن تداي كل شجاع لو تبامح لو ارتفاع ضغط الرفاع نحم الكمات نحم الحمات خدر أمات بالاقتفاع بما فوت وما جفوت بهم نفيت سافتراي تنحو لخيري أغداء ديري بس لخيري ما تراي فلت أمري lim xumri maxli badri balam ina xaalux wala yemilux liman ni suulu man liman ni suulu liman ni suulu man diray liman ni suulu liman ni suulu man diray ya sarjaral ya mutaal ya xalawaali ajib doay sallu wa sallim al mukallim yasim mu sun waay الرسول باب الوصول لين الوصول أحمر هاي سنة دواما وصل سلامة ربنا يا سر إرادة يا سر إفادة خلي سعادة لبنتنا هاي خلي اهتداء زن اهتداء زن اهتداء بلا عناي سافي اختفائي بلا جفاي تيمون شاي تاب خداي وجودي خلي بجودي وعدل وجودي فوق رداي حبل الندى خذ المرادا يا من أفادا بلا كراي حبل برورا خني الخرورا حبل الزورا لكل راي واشكر خلامي واحمد كلام بلا مرام ولم تراي صد لساني نور جناني سيف اماني وسر براي jansan ta dayra luxota mara luxota mara luxota mara luxota mara falta fi jawral man yuray an xisnaali min adalal wa bil halal xali soray xini taba xudal kitaba واقبل متابا يا سسراي واقبل متابا واقبل متابا يا سسراي واقبل متابا يا سسراي يا خير ربي خير مربي طيبت خلي بغنا تراي سل وسلم على المتمم وكل ينسم بالانتهاي سل وسلم على المتمم وكل ينسم بالانتهاي يلا انت وان يلا باي في يلا انت وان يلا باي في سيرن ما سام مباك ñu di ko rey te di ko xoole Bamba yàlla yàlla bàyyi fi sëriñ Moussa Mbacke ñu di ko di ko xoole Bamba yàlla teewaan yàlla bàyyi fi sëriñ Moussa Mbacke ñu di ko di ko xoole Bamba tubaab bi daanu wax sama sëriñ ñoroo na ak Bamba keroog la bàcc Mbacke waroon marché Kasoor tuyaaba naan ko Mbacke bala ngay saa tey jaan naan ko la bay ka njool ma jey saa xaadiru ak naan ko ëllëg say xanaa ma Samba tijaani naan ko labay ko njool ma jey saa xaadiru ak limaamu nan ko len seexanaa ma samba yàlla tewaan yàlla tewaan yàlla tewaan yàlla bàyyi fi sëriñ ma samba mbàkke borom ñetti kaal yi te yu roog seex bamba suma sëriñ yàlla tewaan yàlla bàyyi fi sëriñ ma samba mbàkke tubaab yi daa nañu wax suma sëriñ ñoo raak bamba keroog la bàcc mbàkke roma masa ka sor tubaabe naan ko mbakk balla ngay saa te jaar naan ko labbay ka njool ma jey saa xaadiru ak limaamu nan ko ëhlen wa sëhlen seexanaa ma samba ëhlen wa sëhlen seexanaa seexanaa ma samba seex bamba yaa bari ndam seex bamba yaa bari ndam sunu tuubaa yaa bari ndam ca maamaam li Serigne Touba naan ko yow Serigne Massamba Mbacké man Serigne Touba lu war a bind bind naa ko ma ngi ci ful ko lu war a génn na ko génne lu war a génn bool ko génne ca maamaat la génne xadaa'iqul fadaa'il ak wasatu rubaa daal nuy sànni maa ko bindal saana jaay daam du mbeex xabaar naa kenn du ni moo ko bëgg maa ko bindal saana jaay maa ko bindal saana jaay daam du mbeex naa kenn du ni moo ko bëgg taxaw yal na Sëriñ Tuubaa na defar sunu biir baatina na baana wax bala bi Musa ànd ak Sëriñ Tuubaa ànd te tàggoo ak Musa walhamdulillah rabbil alamin walhamdulillah rabbil alamin walhamdulillah rabbil saana jaay ndam ma xabaana kenn du moo ko bëgge taxawlu naa yal na Sëriñ Tuubaa na defar sunu biir batinan aw baana wax balla bil Musa ànd ak Serigne te tagoo Buusa plateau bu nuy baatare nag fii rek laa ko gis c'est la première fois jërëjëf ak jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla guddal sa